waaw ñoo ngi ziar. yaa ngi jàmm. waaw maa sant yàlla baax a nga. ah ñëw na kay waxatul ñaari wax la moom. teew naa confirmation. bi nga fiy jugee da ngaa am victoire. dama ko siy delluwaat. buumba sa mbooy mbooy ma maa leen ko tàmmal. man maa jaar ndondol ñu ne li ñuy xaar ci yow ba léegi gisaguñu ko. ndondol kenn nelawul kenn añul tey ñëpp a taxaw di ma xaar. yaraa soo fa duggoon tey doo leen lii mënul ne. parce que sëñ victoire rek laa leen mën a te si kanam tuuti nga gis lépp ci kanam tuuti ma gis lan confirmation nga dox ci kaw duma dinaa ko daan di nga ko dinaa ko duma dinaa ko daan bàyyi ko muy wax rek daa comprendre boo jàkkaarloo lo moom tey loo koy wax non li ma koy wax kay jaratul wax soo xoolee ay quelques minutes moo si des quelques minutes moom neex muñ quoi mu ñëw wax ko man du ma sa morom ñii di bëre grand combat bi laa soxla may nekkul moom jaasi bal mënu kon ci kanam barke sëñ Salim rang léyotoo dagg nañ léyotoo ba Diamant Noir Diassy Peulh ña ngay layoot si Peulh Diassy Peulh jàkkaarloog séeréer bi Peulh beeg séeréer bi ci digg géew bi kon nag ndondol gaa ngi noonu ndeysaan kon nag bawol gi moom Diamant Noir lay wuyoo arbitre baa ngi waaj a sifflé Diamant Noir Diassy Peulh Diassy ak Diamant Noir Diamant Noir moo ñu won ginnaaw Diassy Peulh la ñu jàkkaarloo arbitre ba sifflé na ci combat spécial bi tey mooy le 8 octobre ndeysaan 2023 Jambar production ñoom ñaar ba arbitre sifflé ba léegi kenn deful action ku ci nekk a ngi taxaw ndeysaan dellu ginnaaw yàgg nañ faa daje xamante nañu ndeysaan maa la wax li dëgg la Jamal mën naa bëre quatre-vingt-dix minutes maa la wax lii. Jamal Noir daa mën a bëre mën a mboot. waaw. loo loo rombaas moom. kenn moom. ña ngay lëyatoo dagg nañ lëyatoo ba. Jamal Noir Diassy Peul ña ngay lëyatoo. Jamal Noir xàcc na. Diassy Peul ñëpp a ngi taxaw di ko xaar saan gonek nguy gi wala gonek ngoogob gaa ngi noonu ndeysaan njamaan nekk jama gën ngi koy seetaan moom jama noir ña ngay leetoo jama noir a ngi kabar dox wuti ko jaasi pël ak jama noir tamantey baaraam baayante jama noir bi la bëgg jaasi mayu loolu Diassy Peulh Diamant Noir Diamant Noir a ngay seere lamba taake ya ban sal la ko jox ña ngay leetoo si tànk la jëm man gëm naa loolu Diassy Peulh sànni waat na Diamant Noir Diassy Peulh Diassy na Diamant fayu Diamant gëmul li muy def bërekat la attention जाऊन चापंटे जमांगोर जमांगोर जमांगोर जमांगोर बारुकाओ अटाशो जमा चापुन जासी चापुन नेगे नंचे जासे गोर जमानु आर जासी पल जमांगोर जासी पल जमानु आर अटाशो jàppante nañu ca suuf Diamant Noir ak Diassy Peulh Diamant Noir jàpp na Diassy jàpp na attention Diassy a ngi ci suuf Diamant forcé na ko génnee na loxo ba nanguwuma loolu Diamant mbër bu la jàppee da ngay jàpp toru na ko Diamant jàppul fenn Diassy a ngi koy jéem Thiassé ak Diama Diama jàppul Thiassé jàpp na Diama jàpp na léegi Thiassé ngay dóor jàppante nañu ñoom ñaar Diama ngi taxaw jonnu ndeysaan kon ak ndondol gaa ngi noonu ndeysaan kon ak attention Thiassé caxabal na ko daan na ko lay laa xëy la laa Diama danga ko seetaan da ko jàpp wërngaloog moom caxabal ko daan ko jaasi pël daan na Diamant Noir jël bu amul benn werante ndeysaan da ko mu bañ ndeysaan mu jargandaloog moom